njeexintal ki def nag ñaawteef bi double meurtre bi faat ñaari nit di Aziz Dabala ak xale bu mu nekkaloon ci benn appartement bu nekkoon ca Pikine Technopole bi ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne daal dinañ ko jot seen web fësal ko nekk nga xam ne moo def lu ñu mel nag di fett fecckat bi daal di ko faat moom ak neveu bi di Babacar Gano alliance Wali daal nañ ko teg loxo élément bu brigade spéciale nag bu Touba bu quartier Janatu Maxwa ci guddi nag màggal bi lañ ko teg lépp nag mi ngi dooree ginnaaw ba nga xamante ne guddi boobee nag ci campagne bu nekk ci ville santé bu Touba jot nañu nag benn renseignement boo xamante ne dafa jëm ci teewaayu ki nga xam ne moo def lu nu mel ndax nag descente boobee waral tax rek policiers yi ak gendarme yi daal di fa bari fa nga xamante ne moo di canatu maxwa permetre na rek ñu daal di interpeller ki nga xam ne daal jàpp nañ ni moo faat Aziz Dabala ginnaaw ba ñu ko embarqué biir car spécial nag déglu ko Mamadou Lamine Diawo ñu gën ko xam ci Modou Lo moom nag jot na daal di nag wax lépp moom moo ko def ndax nag maçon la bu dëkk ca Pikine ginnaaw raay jot na rek daal di wax nan la def ngir faat nag kii di Aziz Dabala ak ki nga xamante ne rek moo di xale bu mu nekkaloon téléphone mobile crime boo xamante ne jot na ko fësal génn na ci dossier bi ñu jot rek euh, moom mi nga xamante ne moo def lu ni mel daf doon faral di fréquenter ki nga xamante ne rek mooy Aziz Dabala ci sens boobu sax moom Mamadou Lamine Diawo jot na rek daal di dem ci appartement bi Aziz Dabala nekkool ngir sàkkute ko mu jox ko ab xaalis buñ sukkandikoo ci source yi nga xamante ne seen Seneweb ñoo ko fësal jot naa laaj Aziz Dabala mu jox mën a xaalis ginnaaw bi nga xamante ne dafa bañ si rek laa daal di tàmbali di ko jam menacé ko ne ko boo ma ko joxul dinaa la rey moom nag ci la tàmbali di xeex ak moom moom mii di mooy kii def lu ni mel mooy nettali lu nga xam ne moom moo ko def ci lañ def fexe ba jël téléphone am déclaré moom maçon bi moom la daal di xam xamle ci kanam kanamu gendarmerie ci Touba moom mi def lu nu mel ñaari nit yi mu faat dafa fexe ba récupérer seeni téléphone yóbbu ko ginnaaw ba mu leen fàttee ak ki nga xamante ni mooy Mamadou Lamine Thiaw dafa tante woon rek ngir masqué ba kenn du xàmmee ne moom moo def lu nu mel ginnaaw rek ci euh, chambre bi nga xamante ne néeg bi nga xam ne fa la leen fàtte euh, ci la fexe nag ba kii di Babacar Gano alias Wally moom moo ko gis nag ba mu ko gisee ci apartement bi te xam na ne euh, dina ko fësal ci la fàttali rek ne moom it faw rek moom it mu rey ko bu ko defee rek mu daal di daw moom mi nga xamante ne jàpp nañu moo rey Aziz Dabala daal dina rek dal di vider compte Wave bi nga xamante ne Aziz Dabala moom la moomoon moom mi sax nag jot na weddiwul benn yoon li nga xamante ni moom la daan koy toppee ndaxte nag xam ne na bu baax ne moom moo daal di euh, jëlut nag xaalis bi waaye nag xaritam moo ko daal di yóbbu ñaari téléphone yi ci appartement ginnaaw nag ba ñu fàtte euh, ñaari nit yooyu di ay kàddu ci kanamu enquêteurs yi loolu la Mamadou Lamine Diaw mii daal di fësal kon nag jàpp nañ ni ki def lu nu mel teg nañ ko loxo mbokk yi du samay kàddu waaye xibaar la boo xamante ne Seneweb ñoo ko fësal ñu teewlu leen ba ci kanam dinañ ci gën a am ay leeral.